asalaamaaleykum yéen mbokk bokki di tàmm topp seen site internet mourid.info ñu info ñoo di leen présenter sen plateau face à mourid.info tay ñuy dalal Serigne Cheikh Thioro Mbacké bi nga xamne mo nek coordinateur départemental bu coalition PASTEF en même temps sen commission électorale mu nek vice président kon duñ def lu jox ko mu nuyo Serigne bi bisimilah. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah wa Mourides info ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balaaq baax baax di leen balaaq di leen ñaanal jamm nak di rafetlu invitation bi ngeen def ci ñun. <coughs> di indi ay leeral tuuti rek du ma coordonnateur départemental coordonnateur communal la mais ci comité électoral bi maa nekk vice coordonnateur topp ci sëñ Basirou Mbacke jot sa réew. jërëjëf euh, sëriñ bi ci présentation bi comme ñu def lu dugg si suñu émission euh, laaj bu njëkk bi sëriñ bi mooy ne gis nañ ne bi ñuy waaj parrainage nga am taxawaay bu am solo boo ci taxaw ba am benn lim bu am solo boo ci euh, def ñu bëggoon a xam loolu noonu yan disposition ak ban taxawaay nga ci am. man naan la suñu taxawaay feesoon na ci lool ci parrainage bi euh, ndax ñëpp xamoon nañ ne parrainage bi ki taxaw ñu teg ko bokk ci président Sonko ñëpp xamoon nañ ne moo tax ñu teg parrainage bi pour baare ko mais gis nañ ne loo def say pexe pexe yàlla moo la ëpp ay pexe gis nañ ne biñ taxawalee parrainage bi président Sonko bokk na ci ñu ëppale ku leen parrainé ci Sénégal surtout Touba ndax buñ ne 1 million 500 parrainage am na ko Touba am na waaru mag a mag wuñ ci bay ndax am na ci pile de 30 000 parrainage yoo xamante ni ci biir Touba la jóge loolu nag suñu liggéey am na ci mais askan waa Touba nu ñu fonk président Sonko bokk na ci kon loolu remerciement bi ak ngërëm yi dañ koy delloo population Touba. ginnaaw bi parrainage bi jàllee ñu gis seen candidat dem ci lu nga xam ne mooy campagne présidentielle coow lu bari trop yàggul dara ñu dégg coowul 94 milliards yu nga xam ne dañu la xam taq na ci rip euh, yow ngay jege ñaayam boo xam ne boobu léegi dégguñu la nga wax ci ñu doon laaj ndaxam li gars yi lam-laame dafa am wala lan moo ñuul ci soow waaw man de jàpp naa ne 94 milliards yi coow li moom président Sonko moo ko indi ndax moo gis euh, coow li fi mu tàmbalee mu affaire Tahirou Sarr bi mu topp dossier bi ba xam ne lii am na ci lu mu ci war a leeral mu bind procureur directement ne ko mbir ak mbir mi xew na def naa ci samay gëstu xam naa ne nii nii la demee dama bëgg nga ubbi ci enquête kon nag yaakaar naa bu fekkante ni gis nañ ku bëgg lu leer. wala ñu ngi wër ku bëgg lu leer ak ku bëgg lu jub nañ jàpp président ko ndax mbir yi bu fekkonte ni Serigne Bassirou Gueye procureur defoon na liggéeyam heure yi du egsi fi mu egsi mais ñàkk def gum ñàkk def liggéeyam moo tax ku ci nekk naan 94 milliards mais Sonko bu fekkoon ne mbir yi am na lu mu ciy laale wala am na lu ko ci tudde du bind procureur moo tax mbir yi duma ma ci tarder sama temps du ma ci wax bu fekkee daal bëgg nañ lu leer nañ dem wa ilaa mu woolu président Sonko woo ñu ko defee lañ bëgg mu leer dina ci leer ñu gis na ci problème bobu tamit assemblée nationale ñi ngi ci def ab gestu wala ab jeex bu nga xamne ñom ñoom seen biir commission dinañ ko def. dama la ci dox sax dama bàyyi nga eggale question bi la len Wéré wax ak ñeneen ak ñeneen wax len Sonko amul seen jot. Sonko amul jot xana déggu len barki dem bi mu ne wala ja bo mission Sonko é a mission pour son pays Sonko é a mission talu amul seen jot bi ñeu Sonko lim gëna dal moy dagan baat askani pour ñu élire ko le 24 février def ko président de la république mais da du tardel ay temps ci dem assemblée nationale bo xamanteni amul ben niveau député ya fa nek mak Sall mo dem fa tek ñuy xol da banexam tax ñuy wolu président président du rewuy amul seen jot sax lim gëna dal moy top top campagne bi dagan baat askani askani wolu ko feñu tek mak Sall ñu jël ko fa tek président Sonko ñu gis ne batay yaangi wax ci biir parrainage ni am ngeen 30000 signatures ñu gis ne ker bu ngeen def meeting ragal la wala lan la heure bi ngeen egg si Mbàkke lu indi choix boobu. du du dara lu programme bu sarse rek ah, ak it président ko nekk ku nekk ci xolu département Mbàkke tax na fu ci nekk ñu ne na fa jaar ndax euh, bi mu jógee Njaareem jaar nit di bugut la ko xaar Daaru Xafoor ci mbooloo rek jéggi na dayoo man naan la ñaar tane mbiru Mbàkke bi bi mu jógee Daaru Xafoor dem Mesere la ko teeru Mesere it moo ëpp la nekk Daaru Xafoor bi mu jógee Mesere dem Daaru Muuti fa la wulee ñaayo Daaru Muuti sax la fa génn moo jaaxal ñëpp ndax nee nañ dafa baatal raccord histoire Daaru Muuti mosuñoo gis nañ ko fa teeru mosuñu faa teeroo benn homme politique bu toll noonu mu ñëwaat Mbàkke période ay 23 heures la génn Mbàkke gën a jéggi dayoo ci histoire politique Sénégal président Sonko donc lañ gis kuy meeting trois heures du matin wala deux heures du matin di fekk yenn mboolooy loolu nag du du caaga ne président Sonko la nit ñi bëgg mais nit ñi dañu apprécier message am xam ne kii solution la pour Sénégal moo tax ñu ànd ci. keroog bi euh, conseil constitutionnel di biral yi mbër yi nga xam ne ñoo war a laaj baatu askan wi ngir fal kuy président sénégalais yi wala opinion internationale bi yëpp xamoon nañ wala doon nañ joxoñ baaraamu tuuma que ne sa moo nekk premier maanaam moo ki nga xam ne moom la ñu ëppoon yaakaar ne war mën a battre président Macky Sall mais bi ñu gisee ñu am ñuñ recalé ñu gis ne ci biir cinq yooyu vingt trois yëpp dañu leen wan ginnaaw yéen yéen ñaar ñoo ci ñëw ci yéen vingt trois yëpp dem jàppale ji coalition Idrissa 2019 est ce que loolu amut benn jeexintal gu muy def seen biir coalition parce que coalition bi Idy 2019 yor depuis Sénégal ab indépendance léegi mosuñu ko gis ñetti premier ministre juróomi député ak yeneen PCA. dama ci sant yàlla rek ginnaaw. opinion internationale bi ak ñi ne ci biir réew mi ak ñi nga xam ne dañuy faral seen xam-xam dafa màcc ci wàllu élection bu ñu amee yaakaar ne Sonko mën naa baatal Macky Sall premier tour loolu du dara lu dul liggéey bu président Sonko liggéey ak taxawaayam bu rafet mais boo xoolee ñun suñu programme ni ñu ko tuddee mooy jot na Sénégal yi yëpp jot ci lu ñu bokk kon moo lay wan ne Sonko am na lu mu visé am na bëgg-bëgg mooy jëlul décision teg Sénégal comme aw xar wala aw nag pour nañ ko paajoo na candidat yi ñu récalé quatre-vingt-dix pour yi boo gisee soit wuñu Sonko mais soit beneen candidat Sonko liñ ko woo doon ci wuy si muy pàccoo réew mi Sonko opté wul gagné Sénégal pour ay coalition Sonko dafa opté gagné Sénégal ci Sénégalais yi moo tax boo xoolee discours bi gën a privilégié Sénégalais yi mooy seul candidat boo xamante ni ba mu présenté candidature dugg ci campagne ba léegi ci programme lay wax du wax ci ay nit du téesante du dàggasante heure bu xëyee dina def benn benn chapitre ci programme wax ko Sénégalais yi boo dee seetaan RTS ngay seetaan discours yi mu fay def mooy seul candidat bi nga xam ne wàccagul kon nag bu ma gisee yenn candidat yi soit wuñ Sonko mais soit beneen candidat damay xam ne seen suwaal dama leen koy respecté mais nag dañuy jël seen wax yi démb ak seen jëfi tey ñu méngale ko rek buñ ko méngalee dinañ xool ñoom liñ def lan la war nañ ko def wala waruñ ko def ndax gis naa ci candidat yooyu koo xamante ni gi yëkkati na sëñ bi sëñ bi sëñ bi sa biir coalition sa biir coalition gis nañ ci candidat bu taxaw Sénégal yëpp di ko déglu mu ne ñaari ñaari choix am benn pire benn président ko ndax li ko ñëpp xam woon mooy xeex système bi gis nañ diir bu. kooku kan du ma tudd turam boo ko waxee dinga xam kan gis nañ ci diir bu gàtt mu di waxi boppam. lam doon xeex barki dem ak dem mu dem and ci loola kon dina xamne ne kon Sonko wàccul yonam ñu doon xeex lu jarul yon ñu ñu wacc seen même président Sonko mais gis nañu lolu feeñul ci campagne li feñ ci campagne moy mooy président ko Sonko moy jël candidat boo xam ne mobilisé ci ay nit ci mitinam bisuñ benn candidat bu koy mitin ta gis nañ du genn ben dërëm di dépenser contraire ba sax moy ci dem ci Sénégal yépp nit ñi ñoy mobiliser wu genn seen xaaliss di ko dalal di ko gàttan di ko teeru loolu nag ak sant yàlla le 24 février dinañ xamne coalition bu reuy amul solo Sénégal yi and ak yow ñu am solo yéen a nax askan wi ndax seen biir coalition am na beneen jàngat bu ma ci am mooy ku mel ne euh, docteur Ablaye Niane bokk ak sa leader fu jaar même parcours ak keneen ku ñuy wax docteur Boubacar Camara ñuy ñu ñu wax nit ñoo xam ne système bi ñu combattre tey moo tax ñoom ñu ñu nekk parce que bañ ba ñëw fonction yi occupé ci état du Sénégal ma jël exemple ku mel ne Boubacar Camara plan Takkal Sénégal moo ko bind bu ma jëlee Ablaye Niane am na code impôts et domaines bi Sénégal di jëfandiko actuellement nii à 80 pour cent moo ko bind ci loxo ministre des finances actuellement di Amadou Ba. Amadou Ba li ko def ministre Sonko mii ngay tudd tey mu nekk sa leader ak Ablaye Niane ñoom ñoo liggéey li tax mu nekk ministre kon tey bu ñu demee ba ñoom ñu wëlbatiwaat di combattre système bi te tudd nga ma sànq ne ma ñoom fu mën di jaar duñ joxe ñaar dërëm nit ñi ñooy cotiser di lool te ku xam ne ku liggéey ci impôt et domaine rawatina administration du Sénégal pendant 15 ans ak opportunité yi ngay am chaque chaque mois. kon soo wëlbatikoo ay nit di daw di la ko diseel am na lool loo xam ne système bi ngay comprendre combattre war ngaa wax nit exactement lan moo ci li bon concrètement pour ñu mën ko xam. waaw loolu li ma la tontu rek li may njëkk mooy sant yàlla ndax bi muy présenté livre bi ci place de l'Obélisque bi ko Cheikh Yirim waxee ne ko système bi ngay combattre gis nañu système bi moo la créé lam tontu woon Cheikh Yirim laa lay tontu mooy yéen xamoo leen lan mooy système mu ne système bi jéggi ay nit. ah ni mu définir système rek laa koy définir bokk na ci li muy combattre Sonko dafa am yoon am gis-gis ci politique am ci jaar-jaar tamit teg ci ndax ñu nee système bi moo ko moo ko créé ci système bi la liggéeyee ba génn tey jii di combattre système bi yoroon na maana ndax histoire yonent yàlla Moussa ak Firawna rek laa lay nettal rek yonent yàlla Moussa lu mu am ci àdduna Firawna moo ko defal moonte bokk na ci ñi déjjati Firawna ci nguuram ndax mbir bala nga koo combattre dëgg dëgg dëgg da nga koy xam. Ousmane Sonko donte système bi moo ko créé système bi moo ko defar mais bénéfice wu ci biir système bi pour am ay milliards te yoroom jaar tamit dafa leer ndax mooy seul Sénégalais bi nga xamante ni liggéeyal na état Sénégal dugal ci keesu Sénégal ay milliards te bi mu génnee problème mu kër sax doo ko amoon. kon kooku bu ne la nekkoon naa système bi mais système bi tooyul sama ceeb parees na ko mën a gëm te mooy seul politicien bi nga xamante ni day ni bu dee mas naa lekk benn dërëm bu ma moomut yàlla na ma yàlla rey lakk ma doo ci yem sax mu ne bu état Sénégal gisee benn dërëm boo xamante ni mas naa ko jël nañ ma prisonnier en vie kon kooku war na ne yoonam mosu koo tegi teg ci dafa bind programme programme am boobu bi mu koy bind xëy na am na Sénégalais yu ñu ci bokkal gis-gis Sénégalais yoo xam ne ba léegi sax ñu ngi ci biir système bi ngay wax ndax parti politique am na ci ñoo xam ba léegi ngi biir impôt ñi ñu ngi biir fonction ñu jàmbaare mais ñooñu nekk ci mbir taxul nga nga yées ci taxul nga bun ca docteur Abdoulaye Niane mi ngay wax sénégalais la juddoo Sénégal jangé Sénégal yaro Sénégal màgge Sénégal bu fekkon tini gis na ci Sonko genn ñak fayda wala gis na ci Sonko genn jubari du and ak président Sonko ndax man nan ne président Sonko su ëpp ko njàng Boubacar Camara mo ngi kasaali kan ko non mais bu fekkee ne ñoom ñoo bayyi seen position bayyi seen lañ nekk won ñew paré pour and ak Sonko moy dañu gis ñu ak jub gis ñu ak ak mën a yor Sénégal mo tax ñu paré pour and ak mom ndax it candidat yi fi nekk bari na mais buñ préféré Sonko rek moy diñ gis ci Sonko doyna kon nag loolu laa ci tontu. waaw ñu gis ne que euh, yow mi nga xam ne ni bi liggéey bi di door yaa newoon Pastef ba ñeneen ñi xaw a am jafe-jafe xëy na ak ñu doon wut ngir mën a dem élection ñu ñëw fekk si leen ñu gis ne ko au niveau départemental coalition bi nga xam ne yi moom moom nga jiite ku mel ne Teranga Sénégal wala yeneen alliés yi dañu am ay jafe-jafe souvent ak yéen parce que gis naa ne même jamono yi soriwul dara Teranga Sénégal offriroon na leen si permanence am pour que ngeen def seen activité da ngeen a bañ. wa mbacke ñom nangu nañ ko mais yeen ñi nek tuba da ngeena bañ an lu leen won sabab bop sa yon nga gëna vérifier information ñu nak wa tara nga sénégal li nga wax sax contrat bi mo ñu nak ñom ñu and di liggéey fi ma waxé neer bi ma ñu naka jek euh, xam nga euh, ni ma koy wax rek ñun duñ jiitu suñ kilifa ci ab dogalam bi tara nga sénégal président ousmane sonko gisé né warna and ak président abdoulaye ñan ñun li ñu xaar moy président sonko jox ñu ci ndigal nañu ki kat sama allié la dem leen ngi ak mom liggéey ba waxto jotee bu mu ko defee gis nañ ni and nañu Abdoulaye Niane liggéey liggéey bu rafet fi ñu dolli ñu ngi and di xàccandoo di dóorandoo ñoom ñuy neex andal ndax wax dëgg yalla am yaatalal nañu mbiri seen moyen ak suñu moyen ñu ngi ko boole kenn xamewul kan moy Pastef kenn xamewul kan moy teranga Sénégal kenn xamewul kan moy jot réew kenn xamewul kan moy suqali Sénégal taw loolu lepp liko waral moy ñoo bokk ben intérêt bu ñu défendre bokk kenn kuñ bëgg mu falu kon mbiri mom moom sant rek waaye nag liñ naan bëñ ak làmmiñ dëkk léeg ñu laale waaye li ñu laale lépp lépp ci dëgg lay nekk ak ci bëgg luy defar bu fekkoon di nii kay contraire ba ci la waroon a jaaxale ñëpp mooy ñu ànd di jaayante tàggoo di jawante mais gis nañu ci suñu biir képp koo xamante ni am nga la metti ci sa morom da ko koy wax bu defee ñu jàll ci leneen te loolu rek. ba tey euh, sa sa xarit sax la ñuy wax wala wala sa sa mbokk euh, bërki démb mu def déclaration ñëw loo xam ne yaa dox ba sa responsable wala sa leader recevoir ko bureau ñu gisaat ko am même pas ci diir bu gàtt mu récidivé delluwaat ginnaaw delluwaat di defal ay activité mu biir APR Moustapha Seck Ndindi loolu tamit naka la mën a amee ci benn coalition bu nga xam ne nii euh, jeune la maanaam jiixi jaaxa googu wala ci giñ cangañ googu noonu nan la mën a amee. loolu nag moom su ma sañoon nag nga jël sa micro bi dem ba egg nga laaj ko ndax man fi ne placé moom pour tontu ci question moom ma gisoon lu ko doy ci ko ñu and ak mom liggéey. buma ci laaj moy ne que bi mi dem ci Sonko d'après information yi ñi ñam à 80 yow la. ya ya ko doon dox ya ya ko négocier ba ya ko yobu ci président Sonko. xam ma ko dox waye moko sakku mo gis na warna naa liggéey président Sonko lijjanti suñu contact woñu ni ñu dama bëgg liggéeyante président Sonko ñu dem toog waxtaan mom xamal ko ne ko parti bi ni lay doxé mu ne pare na pour adhéré wu ci jox bop sama jox sama bop parti bi comme ni nga waxé don choix pour les patrie non ñun mom ku xamni ñu doxé boo gisee mooy yu difficile yi ñuy départ pour di campagne di nga xam ne duñ di kenn duñ dul def ndax ñun ci dëgg lañ ndax Sonko sax digguñu dara lu mu deful ndax day di wax ci discours am may jàppale fekk ma sama kër nga joxel ma fa dépense wala nga fayal ma sama courant wala defar Sénégal kenn amul ma ci jàppale comme li sëñ naan am dencal ma kenn du ma ci gaañ président Sonko ne nee na am defaral ma Sénégal kenn du ko ci dig kon nañu duñ dem fenn di diggee ñaari salaamaaleykum kon kay moom mi gisoon lu ko doy ci président Sonko dem ba ci yàgg xeyna gisatul bopam ci mbiri wa ila jappone fi luñu ñu paajok lu seddo mo fi nek mu gennat kon koku ngay yëkkat sa micro bi dem laaj ko ne ko lan motax nga duggon ba sa yak nga genn mais ñun mom lool duñ ci tonto ce candidat rencontré na maître oulay wad ñaar yoon yépp mu gennu wax ak presse bi ba légui ni maître oulay wad garder silence am waxut kan lay àndal ndax loolu nekkul ay gàllankoor en matière de communication ci ñi nga xam ne dañoo woon ci département bi pour doon xaar président addu ci ngir mu jàppale leen te ba léegi amuñu ci lu leen leer seen ëllëgi de département bi suba parce que d'après information yi ñu am docteur Ablaye ñaan li tax mu fekk si seen coalition am na lu mu bëgg ëllëg ci département bi te bu PDS noppee waxut ndax loolu du nekk gàllankoor ci xam nga comme ni ma la wax léegi ci biir question bi rek ñun bëgg nañ ay kilifa jàppale ñu ci politique mais liñ gën a préféré suñu doxalin mooy sénégalais yi ndax boo gisee ñu lance système na bokk na mooy sénégalais bu gis sa bopp ci bokk na nga dem joxe fa sa ñaar dërëm joxe fa sa juróom loolu mooy financé président président campagne président Sonko sénégalais yooyu nag depuis au début ñuy jàppale président Sonko di ko pousse ñooñu liñ bëgg ñu jàppale ñu Abdoulaye Wade kilifa la ci politique moo def déclaration sénégalais yëpp di ko dégg mën dafa am estime ci président Sonko da koo bëgg nit nag maa la bëgg lii muy rëy rëy rëy maa la raw dong moo ko mën a fay mënu ko fay sax lu olof wax kon Abdoulaye Wade bu defee déclaration ne def bëgg président Sonko da koy yërëm bu koy gis da koy fàttali ak ndaw a njukkale mooy bu ñibbisee Sénégal mu dem seeti ko waxtaan ak moom président Sonko première du jël tànkam dem seeti président Sonko Abdoulaye président Sonko jël tànkam seeti maître Abdoulaye Wade ne ko li nga wax foo ko teg ak yan information yoo nga am yu mu amul Abdoulaye Wade leeral ko loolu rek mooy sababu dem fekk Abdoulaye Wade ni ko dama lay jàppale président Sonko ñi bëgg ñu jàppale ko mooy ne comprendre nañ ko xam nañ fi mu jëmee Sénégal te bu toogee du ay politicien loolu président Sonko privilégié ko kon nag Abdoulaye Wade du noppi moom déranger wuñu te li ëpp ci militant Abdoulaye Wade fii ci département bi 90 pour cent ñi nga reléewut ñun kon nag Abdoulaye Wade bu defee silence tamit base politique bi amoon ci département jërëjëf mbokk ñu doon topp ñu leen fàtt ni yéen nga seen biir émission face kon def lu jox kàddu gi sëriñ bi mu tàggatoo ak auditeurs yi nga xam ne ñoo ko doon topp sant yàlla rek ndax euh, boo leen gisee seen bopp ci li ñuy def candidat bëri na fi ngeen déplacé wu ñëw fii seet suñu loolu sant lañ leen def ak ngërëm te xam ne président Sonko mooy seul candidat bi nga xamante ni programme am dëxëñ na ci lu am solo. waaw ndax nee na bu toogee li muy njëkk def décision yi muy njëkk a jël bokk na ci démissionné ci parti politique ndax nee na président diis na diis goo xamante ni ko booleeg di seere parti politique bi ci topp it nee na bu toogee dina supprimer fonds politique yi tuddee ko fonds secret bi ci topp it nee na bu toogee directeur général yi nga xamante ni dañ koy nommer loolu dina dakk ci Sénégal dañ koy def concours képp koo xamante ni moo gën a mérito mu jiite ndax gis nañ ne Sénégal problème yi ñu am dëgg dëgg dëgg ak campagne bi milliards yi ñuy distribué nga xamante ni ci alal réew mi la li ko jur mooy directeur général yi di ko joxe buñ leen tuddee ay final départemental wala ay final régional ñu fi indi ay waykat ak ay taxawalukat di leen jox ay millions yi Sénégalais yi ak milliards Sénégalais yi te loolu lépp li ko waral mooy ñàkk compétent bu ñu fa ñàkk compétent ak ñàkk nekk loolu bu toggee dina fi dikk Touba gi ñu nekk ñor gum ko ñor moo tax mu ne bu fi jàll dénk réew mi dina fi def quatre hôpital yoo xamante ni bépp niveau 3 lay nekk te gis nañ ne depuis président Abdou Diouf ba léegi Touba hôpital mosu fi am hôpital bi fi nekk mooy hôpital Ndamatou Abdou Diouf moo ko fi defoon hôpital du Modou Lo fa zone fee taalibe Serigne Touba yi ñoo ko fi def président Sonko ne bu toogee dina jël def hôpital yoo xam ne dina méngoo ko waa Touba ndax dëkk bu ñu mooy deuxième fajoo transport bi dina ko améliorer ak yeneen ak yeneen loolu nag bëggoon nañu ñu gën cee mais xëy na nii la ko yàlla dogale woon dinañ am yeneen émission yoo xam ne dañ ko seexaat sant nañ leen gërëm leen di rafetlu seen liggéey bu baax a baax ndax site la boo xam jërëjëf euh, sëriñ bi ñu ngi lay ziar baax baax di la jox sa wàcc waay toute l'équipe de Mourides point info ñu ngi lay jaajëfal ci opportunité bi ngi leen jox pour ñu mën a seq yow ci seen panel euh, Mourides point info kon mbokk yi ñu ngi leen jox dig daje ba beneen yoon jërë ngeen jëf